bon patriote ser patriote maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare am na ci photo bu ngeen ci doon dugal muy bañ bëre bëgg bëre mi ngi doog a safe nag bi nga xamante si nii nu ne provoqué nañ ko sénégalais yi nu ne nu ne provoqué nañ ko senegale yi pour élection mën a bañ a am ci 2024 sénégalais yi ne tek di xaar bis parce que bi bis boo gis bis lay xaar loo gis lu ne bis lay xaar sama gaa ñi jàppoon ne 2024 du yegsi 2024 yegsi ñu jàpp ne le 25 février du yegsi ñu dem a dem ba dem dem ba xam ne wuréw a dem na këng waxi mag dem na ndaañtaali foog jël am te xam na ne ñoom ñooy daanu dañ leen di daan ba ruur leen ci suuf si ñu provoqué sénégalais yi xeex pour dàq élection bi sénégalais yi ne leen xeexunu nun dañuy dem élection ñu ne dañ duñ jox fiche président Ousmane Sonko sénégalais yi ne ne yéen a xam mais ñun dañuy dem élection ñu ñëw kale Bassirou Diomaye Faye premier tour parrainage ñu ñëw sénégalais yi ne leen xeexunu ba tey dañuy dem élection ñu ñëwaat jàpp président Ousmane Sonko tëj ca la ko jiitu bëgg xeex sénégalais yi ne leen xeexunu dañuy dem élection <laughs> kon xanaa kon patriote yi ñoo pare ku përewut da ñëw ci ñun ñaan ko ci njekk ne përewuñu mu leer nga désiste toog ne ñun ñi pare ñu dem élection ñu jël ay tappale jiital ci PDS mi nga xam ne seen candidat mësta bëgg a doon président Sénégal fii Karim Meïssa wàdd parewul moom waa PDS ñoo ko jël di ko waxal ci seen kàddu kan moo gis Karim Wade biñ ko rekalee ba ba léegi mu def vidéo taxaw wax nekkul ci prison nekkul fenn ñoom ñoo koy bindal di wax mais Karim Wade waxloowu leen ñu def seen ay tappale def seen ay mafia ñoom waa système bi pour def ay commission de enquête mais loolu c'est peine perdue élection bi dañu koy tëgg te day am incha allahu rabbi le vingt cinq février le vingt cinq février fu ngeen ni jaar ba ay dumo national du fi am gisuma ko <laughs> lu ngeen ni système bi dafa peur de loolu gars yi naan système bi dafa peur barke alxuraanu karim kii mooy bàyyi gars yi président Ousmane Sonko moo jommal gars yi moo leen futti ban set ban ne dungu moo ba ne dungu laa wax kii mooy président Ousmane Sonko moo fekk système bi depuis 1960 ba léegi mu nekk ci ay tappale di def ay njuuj njaaj kum jàpp yóbbu la ci yoon fexe ñu jéem laa yàq kii mooy président Ousmane Sonko ñi nga doon yàq ñuy yàqu ñoom seen bopp rekk leen ñor président Ousmane Sonko nag Sénégal la ko ñor élection bi suma gaay dañ koy tëgg suma gaay élection bi dañ koy tëgg waajal leen le 25 février ay tappale kese ngeen nekk <laughs> PDS génn leen ci lii waaye